rabbi ya ahmadu ala muhammadi alayhi xayru salaati samlati rabbi ya ahmadu ala muhammadi alayhi xayru salaati samlati mbokk yi nga xam ne ni yéen a saxoo ànd ak ñun ci màggal tiire touba point org assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu gannaaw ba fukki fan ak juróom doxee suñ diggante ak màggalu Touba ñu fas yéene jukki leen li fi dikkoon ci wàllu xibaar. xibaar yu aju ci wàccaayu màggal gi atum 2010. la ca fees ñetteelu fan bi nga xam ne nii moo soxal lépp lu jëm ci wàllu cet ak cellal ci biir dëkk bu sell bi di Touba taalibe yi gën nañoo feet liwaat seen laxasaay kilifa yi nga xam ne ni ñoom ñooy saytu lépp lu ni mel nag am na kàddu yu soññe yu ñu yëkkati eh, jëmale ci liggéey boobu la nga xam ne nii diggal na lu bàyyi ko ci xalif général kullu murid Cheikh Mamadou Lamine Bara Mbacké Falilou danañ ci nu mu yaatoo ci biir xibaar yi kuréel gi nga xam ne ni moom moo lëkkale mboolem sëti Serigne Touba Cheikh Ahmad Bamba yu jigéen yi euh, di Kanzul Muqtadin ñoom tamit jóg nañu taxaw temm ci jëfe ndigal loolu nga xam ne mi ngi bàyyi ko ci sangub sang yi Cheikh Mamadou Lamine Baara Mbacke Falilu euh, ci kaw loolu nag am na kàddu yu ñu yëkkati jëmale ci yëngu-yëngu yi nga xam ne ni jot nañu ko amal danañ ci dikkaat ak yéen ci num gën a yaatoo ci biir xibaar yi képp ku wax màggalu Touba wax wàllu koom-koom tax na itam mboolem jumtuwaay yi nga xam ni dañu koy soxlawoo ci biis bis le ñi nga xam ne ni ñoom ñoo yëngatu ci lu ni mel tàmbali nañ koo tuur eh, ci biir dëkk bu sell bi di Touba ñu jàpp ne fi ne ni eh, sëq ak jóor la fi lu jëm ci fànn googu nag am na benn gëstu bu yaatu boo xam ne nii jagleel leen nañ ko ci danañ ci dikkaat ak yéen ci nu mu gën a yaatoo ci biir xibaar yi université safar di jataay ba nga xam ne ni ña ngi koy amal ca kër Serigne Touba Cheikh Son bu Mbàkke eh, foofu la itam mbir ya ña ngay wéy di dox Eh, ci ndigalu xalif général ku lu murit lu jëm nag ci fàttaliku bis bi nga xam ne nii eh, ci la fi Serigne Touba Cheikh Ahmad Bamba xëyewoon liggéey li borom moom moom moo fa gën a fees eh, ci kaw loolu itam imam Habib Diop am na kàddu yu mu fa yëkkati jëmale rek ci njariñ yi nga xam ne nii bis boobule làmboo na ko danañ ci dikkaat ak yéen ci nu mu gën a yaatoo ci biir xibaar yi lii daal mbokk yi moo nekk ponk yi nga xam ne ni moo gën a fees ci xibaar yi ñu leen fas yéene faram-fàcceel ni ki tey ji nekk ñetteelu fan ci weeru safar ngeen di ko ànd itam ak seen site magal-touba.org bu ngeen taaxel loo tuuti ñu mën leen koo faram-fàcceel xibaar yi ak seen mbokkum taalib yi Serigne Mor Doxaane mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu dal leen ak jàmm ci màggal tiire touba point org du site bi nga xam ne ni commission bi saytu lépp lu jëm ci wàllu information ci bis bi ñuy fàttaliku tukkib Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba ci biir géej gi ñoom ñoo ko sos nag ngir mën leen yaatalal lépp luy tukkee ci wàllu xibaar ci biir dëkk bu sell bi di Touba xibaar yi nag dañu koy doore wàllu cet ak cellal ñetteelu fan bi nga xam ne ni ndigal la lu bàyyi ko ci xalif général kullu murid Cheikh Mamadou Lamine Bara Mbacké Falilu niki tey ji la woon ci ñetti fan ci weeru safar ndigal loolu nag mboolem kilifa diine yi àndandoo ak taalibe yi euh, door nañu ko lu ëpp ci biir dëkk bu sell bi di Touba itam jaar nañu fa ba amal fan nañu ko waroon a amalee euh, ci kaw loolu nag ni ki tey jii ñi nga xam ne ni ñoom ñoo di kilifa yi jiite Matlabul ni gannaaw taxawaay yaatu yoo xam ne ni am nañ ko ci liggéey le am na kàddu yu ñu ci yëkkati Serigne Moustapha Sylla ci jokkoo bu mu séq ak Serigne Mouride mbay menn mbooloo desul ci liggéey bi nga xam ne bii eh, mooy wàccaayu màggal gi muy warteef woo xam ne bii dafa war danoo war ñun waa Touba eh, ngir seetal dëkk bi eh, te waroon nu sax ci waxtu wu mën di doon dëkkub Serigne Touba bi ñu di ko sellal ndax Serigne bi ni mu selle te ñëpp di fi ñëw di fi barkeelu si fi di fi jële ak sellaay kon sellaay googu bu ñëwee dañ ko njëkk a war a fekk ci suuf si ni nga xam ne noonu la suñu borom sellale ci baatin saayir seet loolu di sunu warteef. loolee nag ginnaaw buñ ci amee ndigal te màggal gi di jaaruwaay bi di buntu bi di buntu jëriñu bi nga xam ne bii buntu la boo xam ne bii taalibe bi yëpp ci leen fas yéene jëriñoo àdduna ak àllaaxira eh, kon wàccaay woowu njukkal la lu ñu delloo sëriñ bi ñun waa Touba mu mel ne ñi nga xam ne àdduna bépp dañ koy jógee jëm si ci dëkk bi kenn ku ne yaa ngay waajal sa bopp ci tàmbalee ko ca sam col eh, tàmbalee ko ca say jukko tàmbalee ko ca saw melo tàmbalee ko sa jëm ko yéene taaral ngir euh, rafetale ko bésub Serigne Touba bi ganale ko ko kon waa Touba ñun tam am na lu nu war lanu war nun mooy ñooñee bu mu dikkee ak nañu mel te kenn ku ne di melowa gën a rafet ci yow ngir ki ngay fekki moo tax nga mel melawoowee bu ñu dikkee ki ñuy fekki moom itam fekk suuf si ci boppam nu sellal ko ba mu set ba dëkk bépp daj waaye nag du yem rek ci nu sellal suuf si noonu nuy sellale suuf si ba dëkk bi daj noonu lanu warit nu fas ko yéene te daan ko defit sellale ko jukko daanu mën a dékku gan ñooñu mën a gindi ñi xamul mën a dalal ñi xam mën a dimbali ñi nga xam ne ni dañ koo aajo ñëpp nu xajoo leen ci sunu biir wàcc sunuy lal eh, lal ko ba mu rafet génn sunuy néeg defar ko ba mu baax rafetal sunuy ëtt ba mu sell ak sunuy mbedd bàyyee leen ko te dem di def ay xéewal di leen ko indil eh, ba ñëpp xacca boole kook di leen gindi ca lañ xamul di leen dimbali ca lañ mënul loolu lépp teraanga ji Sëriñ Tuubaa def defal nañ ko waa Touba def na ko ci dëkk bi kon loolu sunu sas la ci fànn googu la ñuy desandi ba léegi mbooleem kanzul muxtadin di kuréel gi nga xam ne ni moom moo lëkkale Serigne Touba euh, sëti Serigne Touba Cheikh Ahmad Bamba di euh, soxna yi ñoom nag jug nañu taxaw temm itam ci fet li seen laxasaay ngir jëfe ndigal loolu nga xam ne nii mi ngi bàyyi ko ci xalif général kullu murid gannaaw nag pëseef boo xam ne ni wane nañ ko ci mbir yi def ci seen doole ak itam seen alal euh, am na janloo bu ñu amal ak taskati xibaar yi ngir soññ rek mbooleem ñi nga xam ne ni ñoom ñoo bootu ci seen gannaaw soxna Ndeye Marème Mbacke am na lu mu ci dénk Serigne Abdou Bakhe Dia ñu teelu ko ñu di leen gërëm te leen xamal ne ñu ngi ci laxasaay gi na ci waar wi waar wi nag dafa yaatu ndax kenn ku nekk ak wet ga nga war a jàpp ñun nag waañ wi lañ ñu féetale ñun daayira Kën Sul Muhtadin njiitu soxna Astu Mbàkke ak mboolem mbokk yi nga xam ne ñoo fi nekk ak euh, taalibe Serigne Touba yi nga xam ne ñoo ne ci dëkk bi te bëgg a liggéey Serigne tubaa ak doomu seex nga xam ne ñoo ne ci dëkk bi bëgg a liggéey Serigne Touba ñun ñëpp ñu ànd nekk ci waañ wi euh, waañ wi nag buñ fi nekkee ba léegi jàmbaar lañ jigéen ñëpp dañuy takku ndax dañuy wax ne na jigéen ñi ñu ñu ñuy togg nañu ne ci waañ wi waaye ñi ci des nga xam ne bu ñu ñëwee dana lu fi nekk dana doy rek nañ dem ci liggéey ba kon jigéen ñaa ngi ci liggéey bi ci terrain bi jigéen ñaa ngi ci waañ wi. Euh, li ñu leen di gën di sensibiliser nag mooy ci wàllu cet gi ndax euh, ñam yi ñuy togg dafa laaj mu set. Euh, di wut omo bu doy ordre de bu doy saabu yu doy di ko utiliser di wax ñi nga xam ne ñoo ne ci liggéey bi itam. waxtu wu ne nañu fonk saabu ordre savel màggal gaa ngi ñëw màggal gaa ngi ñëw te lu nekk ngi ci biir Serigne Touba nag moo ñuy aar ba tax na lu ci mën a nekkit da lépp lu mën a doon dégg rek lañ ci am waaye duñ ko gis bis boobu nga xam ne ni ñoo ngi ko jàpp ñetti fan ci weeru février di ci fàttaliku tukkib Serigne Touba Cheikh Ahmad Bamba ci géej gi mu nekk bis boo xam ne nii bisu berne la bisu jàng alxuraan gannaaw ndigal loo xam ne nii tukkee na ci xalif général kullu murit loolu itam tax na mbooleem kuréel yi nga xam ne nii ñoom ñooy yëngatu ci yoonu murit dug nañu taxaw temm ngir dugal seen loxo ci wàllu berne gi eh, Serigne Moustapha Sylla di kenn ci jëriñu Matlabul Matlabul koy dox bu dee ci wàllu wér-gu-yaram santé ma nga ca bu dee ci wàllu assainissement ma nga ca bu dee ci wàllu l'environnement ma nga ca bu ci wàllu social ma nga ca lépp teg na ko ci ndigal ndax ay soldaar leen yu nekk ci ginnaaw Cheikh Mamadou Lamine Bara di ko liggéeyal wet gu man di doon rek noo nga fa taxaw ngir fas yéene lépp sëriñ bi rek ni ko yàlla jagale nu fas yéene loola nu firndeel ko ndax euh, lépp bind na ko ci xasidaam gu tedd gi di euh, di di mat di mat la bul faw sëriñ aaraanga ji defarukaay bi yiw yi xéewal yi mat gi lépp bàyyiwul dara noonu nag sant rek la nekk di sant rek tey sant rek te sant gi nu fas ko yéene bokk ak adduna bépp nag di ñaanal ñëpp nag képp fooy mën di nekk te yàlla dogal mënoo ñëw it nga xam ne sa yéene ñëw na sa pasteef ñëw na te sëriñ bi fàttewul fépp fu donga mën di nekk fàttewul fépp fu jullit mën di nekk ñëpp la fasaale ci bis bi kon nag fooy mën di nekk ni ko sëriñ bi waxe da nga ko defee noonu jàng alxuraan jàng xasida sikkarullah staxfirullah julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam defar ay xéewal joxe ko balentaax tuub sàkk sarax te fas yéene wékku ci Serigne Touba loolu mooy bisu màggal gi. bu ñu jugee ci fànn googule ba tey ñu desandi ci biir dëkk bu sell bi di Touba ku wax màggalu Touba wax xam ne nii moom moo di wàllu koom-koom ndax njariñ la euh, loo xam ne nii euh, tamit day feeñ ci màggalu Touba ñu bëri nag ci suñu mbokki commerçant yi di ci sàkku am koom te itam ko ci gis bu baax a baax loolu nag tax na ay nit tàmbalee bàyyi ko fu nekk ci biir réewum Sénégal ak bitim réew ngir ñëw rek indi ci jëfandikuwaay yi nga xam ne nii dañu koy soxlawoo ci biir dëkk bu sell bi di Touba euh, ci kaw loolu nag am na lenn ci ay ay kilifa yoo xam ne ni eh, ci fànn googu la ñuy yëkk la ñuy yëngatu am na ñu ñu ci jokkal itam ci suñu nattangoo ya ñu fa teewaloon mu di Serigne Mouride Mbaye ñu teewlu leen. day doon bagage yoo xam ni waa Touba yëpp dañuy jël seen bagage dugal ko ci benn oto maanaam kenn ku nekk bu ñëwee ñun ñoo ko war a séddale kenn ku nekk ñu jox la sa wàll nga fay transport bi la ca war nag lañ seq yow nga fay ñu ko ñun tam ñu jëf la ñuy jëflante ñu man koo xam léegi maanaam saa bu ñu demaa ba nga xam ne jamonoy màggal daal jege si na. Mhm. danañ ci gis ak yokkute lool maanaam nga xam ne commerçant yi kon ñu ngi waajal màggal gi ñun tam dinañ mën a xam ne ñoom ñu ngi waajal màggal gi parce que liñ koy xamal mooy. Mhm. dañuy gis oto yi dañ daan néew mais bu jamonoy màggal gi ñëwee daal day xaw a sakkan lool. ba dem na day dem ba mujj sax dañuy xaw a ëpp doole. Mhm. parce que fi mu toll ñoo ngi taxawal ñetti oto tekki nañ leen am na beneen bu fi nekk ak beneen bu nekk si yoon encore. ñoom ñoo ñu nga xam ne ni ñoom ñoo di commerçant yi nag donte dañoo jug taxaw temm ci def seen liggéey ci màggalu Touba ñàkkul nag ñu ci jànkonteeg ay jafe-jafe donte nag ñoo ngi ciy am am koom am na ay métti métti yoo xam ne nii ñoo ngi koy gis ci biir liggéey bi ba tax na itam nettali nañ ko Serigne Abdou Baaxe Dia ñu teewlu ko. bu màggal gi demee ba nga xam ne des na ay fan yu néew maanaam lu dugal bagage bi dina xaw a jafe lool parce que saa bu ñu demee ba mu des ay ñetti fan wala ñeenti fan. ba dëkk bi commencé am ay gan dina xat xataay goo xam ne gii saret yi duñu war a mën a yegg fa ñu war a mën a yegg mais bu boobaa itam am nañ ci système buñ ciy liggéeyee bu buñ demee dem ba mënatuñoo dem daal maanaam borom bagage bi dañuy dem woo ko mu ñëw ñu ne ko bagage baa ngi nii mu jël ay chariot ay brouette mu mën koo yeggale ba ci buntu place am. ba tey mbokk yi bu ñu jógee foofu foofule dañu naan diis dem ba kër Serigne Touba Cheikh Sohaibou bu Mbacké ñetteelu fan te université di màggal ba nga xam ni dañ ko fay amal. di jotaay weccee xalaat waxtaan ci soññee ci lépp lu jëm ci liggéeyal Serigne Touba Cheikh Ahmad Bamba rawatina bis bi nga xam ne ni moom la ñu jàpp ñetti fan ci weeru février di màggalu Touba. Euh, niki tey ji nag ñu amal ko ci teewaayu kilifa dina yu takku ci yoonu murid euh, ka nga xam ne nii moo doon saytu wàllu waxtaan wa nag di imam Habib Diop am na lu mu fa yëkkati jëmale ko rek ci melokaan bi nga xam ne ni ab murid war na ko melokaanoo moom kilifa googu nag lii la ci dénk suñu nattangoo Serigne Djili Mbacke ñu teewlu ko. dafa bokk ci ndigalam te nu war a daf noo digal jàng digal nu jaamu yàlla waaye ba mu nu digalee jàng am na lum nu digal nu di ko jàng ba mu nu jaamu yàlla am na lum nu digalee nu dina jaamoo yàlla jàng alxuraan ay daaraam yi yëpp war su nañ ca daan jàng xafs baax na lool waaye mës bokk ci daal yi sëriñ bi yi ñuy jàngale téere yi jàng téere yi mazhabul imaamul maliki moom la ñuy jàng ci daaraam pratique bi mu wax ni maa ngi leen di digal ngeen tënku ci ngirum Malik fa inni amartukum jamian bil mazhabi al maliki fa in raaytumuni afalu shay'an wa lam amurukum bihi wa lam tarawhu fi kutubi al malikiyati al fiqhiyati faqtasiru anhu bil malikiya fa inna li xasaa'isa la amurukum bi an taqtadu bi fiha alaykum bil malikiya fa innaha mutaharatun munawwara maa ngi leen di dénk ngeen tënku ci ngirum Malick su ngeen ma gisoon ma def loo xam ni gisu leen ko ci téere Malick yi bokkul ci ngirum Malick loolu bu mu tax ngeen roy ma roy ma ci tëddigalu ma leen ko ndax man am naay jagle yoo xam ni sama borom daf na koo jagleel du ma leen du ma leen ko digal boobaa bu leen ba ci roy maa ngi leen di dénk ngeen leen ci ngirum Malick ndax ngirum Malick loolu laab la lu sell la wax na ko ci ay waxi wolof maa ngi ñoo xam ne dinañ ko dénk ne leen maa ngi leen di dénk ngeen yem ci ngeerum Malick su ngeen ma gisee may def lu bokk ci lu bokk ci ngeerum Malick it bu leen ma ci roy ndax man kat am ngir tënkatuma xam ngeen ni ci géej gi egg na ci sallallahu alayhi wa sallam ne ko sa digganteeg sa borom nit doxati fi araam na jërëjën jëf mbokk yi ci seetaan bi ngeen doon seetaan ak di déglu màggal tiire touba point org di site bi nga xam ne nii mooy site spécial bi ñu leen jagleel ci màggalu touba def ko itam ci ndigalu xalif général mu murid Cheikh Mouhamed Lawine Bara Mbacké Falilou te commission bi nga xam ne nii moom mooy saytu lépp lu jëm ci wàllu organisation màggal touba di ko saytu ñoo ngi leen di gërëm bu baax di leen jaajëfal di rafetlu ànd ngeen di ànd ak ñun di gërëm nag mboolem ñi nga xam ne nii ñoom la ñu àndal liggéey bi di suñu mbokk yi nga xam ne nii ñoom ñooy saytu istikhama point com ak mboolem ñi nga xam ni ñoom la ñu àndal liggéey bi taalibe Mor Joxaane nekkee woon ci àddukaay gi di leen jox dox daje ni ki ëllëg ci beneen jataayu xibaar wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.